leen di nuyu di nuyu ñu ngeen àndal ñëpp madame la ministre garde des Sceaux bisu tey bii journée historique la mooy journée boo xam ni le 6 bi nga xamante ni mooy mars 2024 mooy bis bi nga xamante ni ci la Sénégal di booloowaat ci la senegal di dajawaat ci la Sénégal di tàmbaliwaat lu bees kon tey suur na historique la pour man pour le peuple Sénégal di la remercier bu baax sa taxawaay parce que bokkoon nañ fii assemblée nationale di sant askan wi nga xam ñoo ma tànn indi ma fii te askan woowu mooy waat Touba ak département Mbacké di sant xalifa saa de di ko ñaal mu yàgg ak mboolem kilifa diine yi madame la ministre loi bii nga xamante ni moom nga indi fii. tam nekk loi boo xam dafa jóge ci gouvernement bi muy projet pour am na amnistie man Cheikh Abdou Bara Dolly njiitul parti politique jiitu coalition nekkal ci askan wi nekkoon candidat nekk doomu daara nekk chef lycée dinaa woote projet de bi ngir plus de man sëriñ bi nee na ma fépp fu waay man di nekk la ma la sant mooy jàmm loolu laa jox ndigal ndigal boobu noonu moo tax sëriñ Basiiru Abdou Khadre jox ma kaale gii moom laa yore tey kaale gii day firneel ni sëriñ bi jàmm la bëgg moo ma ko jox ni ma nanga ko ràngoo xam ni mission bi ngay dox mission bu noble la te am nga suñ ndigal kon nag man dinaa ko wate maa ngi sàpp sama mbokk yi ñu wate ko parce que lii président la moo ko indi mais du yëfi Macky Sall du yëfi Ousmane Sonko du yëfi Cheikh Abdou Bara mais yëfi peuple bi la parce que jàpp naa ni am réew bu tolloo fenn fi ñun ñëpp war nañoo mën a maase fàtte jéggalante baalonte dem ci kanam parce que tant ñu ngi wax lu ñaaw tant que ñu ngi wax lu bon tant que ñu ngi déglu ay nit yoo xamante ni tant que ay mi nga am ñu ciy dund di dem bitim réew day la xaalis di saaga askan wi nekk ci palato yi fexe ba jàmm du am tant que ñu ngi déglu noonu du ñu wate loi bi te man d'accord naa pour ñu wate loi bi pour ñaar raison Ousmane Sonko sama xarit la sama doomu ndey la tey kaso ba mu nekk yéenewuma ko te luwaay bu jàllee dana génn dem fekk ak njabootam parce que ku watuwu luwaa bi da nga bañ ko Ousmane Sonko génn si kaso bi kooku si asini dinaa watu luwaa bi di wax sama benn boo ko yaakaar Macky Sall fukki at ñaar lu nekk defal na leen ko lu nekk jinne lañ ko def na si réew mi lu nekk bu desee ay weer mu bëgg a dem indi leen loi bi ko watu da ngaa trahir loolu tamit sama responsable parce que réew dañ ko war a bokk dañ ko war a séddoo du nekk ba mbir di bëgg a jeex ngay trahir ña nga àndaloon di wàcc di dem feneen koo ko def jaam nga te dañ war a trahir comme ñuy trahir jaam d'accorduma aussi ñi nga xam dañ fay nekkoon fukki at ak ñaar ànd ak Macky tey ñu jóge ci Macky Sall ngir seen intérêt bopp ñii sàcc suufu dëkk bi ñii sàcc xaalisu réew mi tey ñu nekk ay candidat bëgg on opposition bi bëgg leen tere prison loolu d'accord ma ci Sénégal pour tous Sénégal pour tout Sénégal ci kanam jàpp naa ne réew mi c'est pas la première fois loi amnistie am ci réew mi bii mooy am na amnistie boo xamante ni am na ci réew mi président Ablaye Wade tey bu ma nee nekk président de la république ba def mission def ñaari mandat dañ ko amnistie moo tax mu nekk ko te képp koo xamante ni amnistie na la nga récolte amnistie boobu defar réew mi day la réew mi parce que ñun président Abdoulaye mooy suñu mentor mooy suñu royukaay li mu def si ñun mooy jom fulla bëgg réew bëgg sa bopp amuñu benn pression bu ñuy dund man li ma ñor moo réew mi damaa gis sama parti bopp dëkk Touba képp koo xamante ñëw nga Touba bëgg Touba bëgg département bi boo wuxtak man doo ko gagné loolu moom mooy li wér monsieur le madame le ministre boo xoolee waa loi amnistie li ma ko waxee am na amnistie loi amnistie boo xamante ni bi ñu koy def at Diouf di ko booba rebelle yi nga xamante ñoo nekkoon Casamance amul sax jugement pour jàmm la woon te rebelle yooyu am na si ay jamono yoo xamante ni juróom benn fukki nit faat nañ si benn suur loolu lépp ñu muñ ko pour tàpp xol yi dajale boole sàmm kon tey jii képp koo xam waxtu woo loi bi da ngaa trahir bi da ngaa trahir Ousmane Sonko da ngaa trahir Macky Sall da ngaa trahir Sénégal su ma jërë nga jox salaamaaleykum. merci cher collègue la parole est à notre collègue Guy Marie Sagna suivi de Modou mbokk yi nuyu naa leen képp ku wax ne loi d'amnistie bi pour Ousmane Sonko la pour Pastef ak détenu politique yi waxoo dëgg madame la ministre dama bëgg nga wax samay mbokk député ak askan wi ne président Macky Sall bu bëggee génnee détenu politique yi mën na def lu ñuy woowee abandon des charges dama bëgg nga wax dëgg euh, askanu Sénégal ne président Macky moom mii tëj injustement arbitrairement kii di président Ousmane Sonko bu ko bëggee génnee mun na def abandon des charges madame la ministre dama bëgg nga wax askan wi ne président Macky Sall moom mi nga xam ne dafa xañ arbitrairement injustement Ousmane Sonko ses droits d'être candidat te du dëgg du yoon président Macky Sall mën na def lu ñuy woowee modification de l'article L57 du code électoral te ma déposé woon fii proposition de loi boo xam ne depuis 7 mars 2023 kenn xoolu ko kenn et personne ne s'en est offusqué personne ou presque ne s'en est offusqué madame la ministre loolu nga war a wax président Macky Sall loolu nga war a wax askanu Sénégal ne kon waaw mën nañ génn mais du amnistie rek moo am pour mu génn léegi nag dama bëgg madame la ministre nga wax askan wi ne lii tax président Macky Sall jaarul ci abandon des charges ak modification article L57 du code électoral mu jaar ci amnistie c'est parce que moom mooy le parrain des tortionnaires moom mooy le parrain des assassins moom mooy le parrain de ñi nga xam ne ñoo faat boom nit yi moom doomam sax ñu ngi koy tudd ci recruter ay nervi en réalité loi bi pour Ousmane Sonko du pour Pastef du pour askan wi du pour détenu politique yi en réalité c'est pour le président Macky Sall ay mbokkam ay xaritam ak góor ak jigéen ñi nga xam ne moom la doon jëfandikoo pour torturer askanu Sénégal pour rey askanu Sénégal c'est ça la vérité parce que waru leen wax askanu Sénégal bi ne pour dab li mu bëgg a amnistie rek moo fi nekk am na leneen bu jaarul feneen jaar ci amnistie boppam la bëgg a amnistier boppam la bëgg a protéger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 Sidi Mansour Kébé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 qualifié de milice qualifié de force occulte je suis désolé madame la ministre